sécurité publique daal maanaam li wër jumaay Touba euh, dafa am benn problème sécurité publique boo xam ne nii am na ko dañu benn napp d'eau benn dex dex yooyu nga xam day nekk ci suuf euh, jege na jege na mm, biti biti suuf si jege na ko euh, cinquante centimètres zéro virgule cinq mètres ba cinq mètres nga xam boo gasee cinq mètres rek wala zéro virgule cinq ndox mën naa ball te loolu booba mën naa dugg ci biir jumaa yi wala li wër jumaa yi loolu nag ministre bi nga xam moo yore wàllu ndox assainissement Serigne Mbaye Thiam moo ko bi ñuy wote budget budget ministère am tey jii ci àllal ba assemblée nationale ci la ko wax hmm, kon loolu nag daanaka day xaw a dëppoog la sëñ bi waxoon ne lu mel nii dana am sama dëkk ba dex gi waaw lii moom man yàgg naa koo dégg même li wër kër sëñ Abdou Khadre yooyu fi mu ne daanaka boo gasee cinquante centimètres ndox mi ban loolu nag moo ñëw deex sorewul xëy kilifa yi dañ ci jëli matuwaay pour nuñ mën a def ba yëf yi ndax li ci gën gën a gën a yaatal gi sax dañ ne nab bi mu ngi tàmbalee laal li wër jumaay Touba ñu ne le 19 mai 2021 nee na yónnee woon naa benn équipe ñu dem ci barab yooyu nga xam ne bar am na ci barab yu bëri yoo xam ne doon amoon na ay fuite d'eau nee na nag ci la demandé ay études yu sérieux pour ñu mën a xam yëfi lan la nee na ma yónneewaat beneen équipe boo xam ne Sen'Eau demoon nañ ak OFOR ak SONES ak ONAS ak yeneen direction moom ñëpp dem ak seen équipement def nañ ay écoute diglu nañ suuf si def ay sondage ñu mujj xam ne Euh, maanaam foofu ñuy wax noonu benn genre xunti la boo xam ne dafa am ban nga xam ne li ko xaw a kii mooy dañ ko doon dëkk euh, ak ak dikku taw bi ci la ci la loolu loolu formé wu ci lañ ci lañ amaal tam benn nappe d'eau boo xam ne nii mm, yéeg na ba zéro virgule cinq ba cinq mètres lu tolloog trente hectares nag mat na ko loo xam ne am xam ne daal fi ne gëkk na ndox daal nga xam ndox mi mën naa bal heure bu nekk trente hectares ci lu wër wër jumaa ji nee na sax boobu ci lañ bind ministre de l'intérieur pour direction bi nga xam ne moo yor wàllu ni ñuy aaree nit ñi protection civile pour mu dem ci barab yooyu ndax yàlla mën naa dogal am na kër yoo xam ne mën nañ cee màbb ndax ndox mi da leen a yanu nee na nag seen ministère ñi nga annoncé benn programme urgence boo xam ne nii léegi ñu def ay forage danañ ko installé pour pomper ndox mi ndax problème bu sérieux la nee na kilifa yi nga xam ñoo yor Touba ñi ministère bi mi ngi waxtaan ak ñoom waxtaanu xóot ci problème bi kon daal ci gàttal nga xam ne trente hectares ci wàllu googu li féete ak jumaa ji moom ndox maa nga fa buñ ci jógul mën naa nekk dex léegi ñoom nag ñu ngi bëgg a def ay forage yoo xam ne ni mën naa pompe ndox mi waaw xamul bu dee mooy dex gi sëñ bi naroon a wax est bàyyi wala déet ah, bisimilah salaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu waa internet ñu ngi leen di nuyu di leen ziar bu wér a wér ngi fii si kër Serigne Saliou Mbacke borom yërmande borom jamono waaw fii nag euh, euh, bi ma gëstoo danoo ne mbaar mi fi nekkoon euh, bin ko toxalee maanaam ñu jël mbaar mi fi nekkoon defaat fii beneen mbaar bu mucc ay bu gën a kii boobu daal bu soobee yàlla maanaam jën bu si nekk rek mbaar mi fi nekkoon poto jën yi foo sempee jën rek ndox mi day ball mi ngi nii maanaam poto yi fi nga xamee ne poto yi fi la nekkoon rek foo kii rek eh, ndox mi day ball waaw kër sëñ Saliou waaw bu ngeen xoolee eh, yéen a ngi gis image yi nii waaw mais poto yi fi mu sempee mbaar mi daal poto yi daal foo kiiyee poto rek ndox mi day ball di génn waaw ma ñëwoon fii di ziare fii tey la tey la samedi samedi le 4 le 4 euh, décembre 2021. Euh, ñu ngi leen di di leen ziar bu wér a wér à l'heure de 17 heures 58 fii si kër Serigne Saliou mbake ki leen doon may vidéo bi seen mbokk Makhtar Niang Touba asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu képp ku gis vidéo bi rek yàlla na sa aajo faju